salaamaaleykum internautes yi nuyu nañ leen jaar leen ñu ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi laata ñuy ñëw ci faram-fàcce gi dañuy ñaan képp kuy gën ci page bi te abonné ko ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bés cloche bi ndax vidéo bu fi bàyyeekoo nga bokk ca ña cay njëkk jot ñu door xibaar yi ak Saliou Ciss Saliou Ciss nag jamono yi ku ne xam ne ne amul club ndaxte contrat ba mu xaatimoon ak club ba mu nekkoon muy naas yi dafa jeex tàkk jamono yi nag club yëkk a soxla di ko bàyyi xel bari na lool ndaxte moom def jamono yi nag bu ñu sukkandiku ci foot mercato olympique de Marseille ñi ngi bàyyi xel doomu Sénégal bi wante nag la foot mercato xamle olympique de Marseille waxtaanagul sax ak Saliou Ciss wala sax waa këru Saliou Ciss waxtaana bu ci kenn wante daal daf koy bàyyi xel wante Marseille rek bàyyiwul xel doomu Sénégal bi yeneen club yi nekk fële ca Turquie bëgg nañ doomu Sénégal bi mu ñëw fa doxal fa club yooyu nag bu ñu sukkandikoo ci foot mercato dañuy dem fële ca coupe d'Europe joué fa loolu tax ñoo bëgg andi doomu Sénégal bi mu jàppale leen ca liggéey ba wante Saliou la mu bëgg te di ko mébét mooy juróomi championnat yi gën a rëy ca Europe mu dem ca fenn muy championnat bu Espagne wala championnat bu Allemagne wala championnat bu France wala championnat bu Italie wala bu championnat bu Angleterre juróom yooyu bëgg na caa dem benn kon nag dossier wu Saliou Ciss ko toppal ba kañ lay mercato bi jeex. bu ñu jugee ci Saliou Ciss dañuy dem ci Philippe yi moom nag fa daanaka xaatim na contrat ak. club turc boobu di Besiktas moom nag daaw ci club bii di Bandirmaspor foofu la doon football wane na fa boppam bu baax ndaxte foofu noonu dugal na fa 14 bii jébbale fa 7 passes décisives football fu lu tolloog 36 match moom nag Philippe Kandji doomu Sénégal la bu mën li muy def te football am na ci moom yaakaar moom nag jamono yi comme ni ma leen ko waxee fa daanaka xaatim naa contrat ak club boobu di Besiktas Besiktas na club bu mag la bu nekk foofee ci Turquie kon mbokk yi lii moo nekkoon li nga xamante ne mooy xibaar yi di wax ba ca kanam ak ci suñu yeneen vidéo